te dina dalal wax ne itam ñu ngi naw liggéey bi te ndax mat na sëkk euh, yaatu na lool am nag parce que fi tam te nii dañ ko fekk kër keroog bu ñu ko indee ci Boroxaan ak bi ñu ko indee ci Masalik te xam na ne yëmoo foofu am na yeneen barab yu bari yoo ko yóbbu te yàlla rek a tax nga yóbbu ko fa kon nag sunu borom moom nga xam ni moo tax nga yóbbu ko fa te xam na di tax nga jëf ko euh, te moom rek moo am pay ma na fay lu kawe sa njort euh, ndax euh, jëf moom baax na ci waxtu wu nekk baax na ci barab bu nekk waaye jamono yi ñu toll ci léegi nii yaakaar naa jaar nga ci buntu ku ko mas a xel ku ne ma gontal ko résultat ba ñu ngi koy tëgg ñu ngi koy tëgg ba léegi fii ci àddina te bokk te demaguñu àlaxir kon na sa jëf ji ñu ngi ñu ngi ñaan mbokk ci ji sëriñ bi gën a nangu bokk ci ji gën a barkeel su borom dëgëral la ba nga di ko gën di man jamono yu nekk foo ko bëgg a yaatal ak noo ko bëgg a defee rek nga def ko nu ko sa njort te suñu borom nangu ngi sant bu baax tey gërëm ndax lii yaakaar naa ba fekkoon ne yàlla may kàttan ñëpp def nañ ko kon euh, kenn du ranke dara ndax yow sa taxawaay rafet na lool ndax wax dëgg yàlla lii na nga ko waxoon ca ne maa ngi waajal Touba yaakaar naa bi ngeen ke kon ne xam ne ne waaj waajtaay mat na sëkk. kon nag euh, sëñ bi nga ko jëflanteel dañ lay bàyyil nun nag sant ak seere ak gërëm ak ñaan mën nañ ko waaye jëf ji nag moom yàlla ak sëñ bi tax nga jëf ko moom dañu bàyyil mu fay la boo ko sa njor jërëjëf ñu ngi sant di sant mboolem ñi nga àndal ñëpp di ñaan tam suñu borom faj mboolem sa aajo ak mboolem ñi nga àndal ñëpp mu faj seen aajo ci ak sëñ Tuubaa di sakk mu loo